waaw gaaw gaaw ngeen woote si 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ah lii a may. gën noo gàtt noo tawfeex sëriñ bi. lépp nag soxna moom mi Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke mi nga xam ne ne moo tax jooyul Cheikh Béthio nee soxna moom mi lu mat fukki fan ak nangam mi ngi jël ab taawam sëñ Khalil boole ko ak moom ni ko taxawul ma xaadim ne na réew mépp xam ni soxna moom mi moo tax. jooyul Cheikh Béthio jooyul Serigne Saliou bisimilah sëñ Xaadim asalaamaaleykum tubaa rahmatullah Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te gën a wér sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te a wér <coughs> Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence, Monsieur Macky Sall. Serigne basiru Abdou Khadre Mbacké porte-parole du khalife général des morit Serigne Chérif mbakke Fantama di Falilou président du comité de pilotage du musée du mouridisme Serigne Ahmadou Badawi recteur du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Monsieur le représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, Djawrin Serigne Mbakiou Faye. Excellences, Mesdames et Messieurs, représentants des corps diplomatiques, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, Mesdames, Messieurs, chers mbokku talibés. Il m'échoit l'honneur et la profonde, et la profonde gratitude de prendre la parole au nom de tous les comités, organisations scientifiques, finances et communications, entre autres, pour exprimer mon sentiment de satisfaction et de fierté par rapport à la tenue de la semaine du patrimoine de Cheikh Bamba. y compris toutes les activités connexes qui y étaient associées. Nous nous étions réunis depuis le 2 janvier 2024 pour célébrer et commémorer le patrimoine extraordinaire de Cheikh Ahmad Bamba, une figure emblématique dont l'influence spirituelle a transcendé les frontières du Sénégal et a touché des vies à travers le monde. Durant ces cinq jours intenses, nous avons collégialement partagé la conviction que l'engagement et l'action collective fondent notre condition de mourite, de talibé dévoué. Serigne Touba et le Sénégal. Serigne Touba le Sénégal. Serigne Touba et le Sénégal, l'humanité dans ses plus nobles valeurs. Nous avons eu l'occasion de plonger dans la profondeur de son héritage, d'explorer les facettes de sa vie inspirante et de comprendre les enseignements intemporels qu'il a laissés en héritage durant ces derniers jours au Musée des civilisations noires. Aujourd'hui, d'autres pans de son patrimoine ont été investigués et exposés au travers la dimension historique et symbolique mais aussi l'opportunité offerte au regard du modèle de financement endogène et innovant spécifique au mouridisme et qui peut, si ce modèle est compris et approprié, constituer une rampe incontournable pour le développement économique et social dans nos pays. Son œuvre transcende les considérations culturelles, sociales, économiques et religieuses et se résume en un viatique pour l'homme, quelle que soit sa couleur. sa race ou sa condition. Est-il besoin de le rappeler encore? N'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. Chers compatriotes, chers mbokku talibé, cette semaine du patrimoine nous rappelle qu'en s'appuyant sur le patrimoine infini de Cheikh Ahmadou Bamba, nous pourrons esquisser des réponses intelligentes et durables adaptée à nos singularités. L'unique bonne réponse pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est lorsque les problèmes sont là, lorsque nous sommes secoués par les turbulences de la vie, vous savez que vous détenez la solution, Serigne Touba. L'un des aspects les plus remarquables de l'héritage de Cheikh Ahmad Bamba est son engagement envers le travail acharné. Il a enseigné que le travail était un acte d'adoration, une manifestation tangible de la foi dans un monde souvent dominé par des idéologies éphémères. Son message sur l'importance du labeur honnête et du dévouement à la tâche demeure d'une pertenance éternelle. Le cheikh, par la khidma, a montré que la spiritualité n'est pas une retraite du monde, mais plutôt une immersion active dans celui-ci. Il a démontré que la prière et la méditation devaient être complémentaires à une vie d'action bénéfique. Son approche équilibrée a inspiré des générations à suivre un chemin de service désintéressé tout en nourrissant leur connexion spirituelle. Un autre pilier central de l'enseignement de Charmat Bamba est son plaidoyer constant pour la paix et la tolérance. Dans un monde marqué par des divisions et des conflits, ces messages de coexistence pacifique et d'acceptation mutuelle résonnent comme un écho solitaire. La Mouridia reste une force unificatrice, établissant des ponts entre les différentes communautés et promouvant l'idée que la diversité est une richesse. Il symbolise un islam de paix qui s'intègre parfaitement à l'environnement géopolitique, devenant un socle d'équilibre, de cohésion et de stabilité sociétale. Le patrimoine de Ahmad Bamba est donc une opportunité pour l'humanité. Ceci est d'autant plus vrai que face à la montée de l'extrémisme et de la violence terroriste, la Mouridia s'impose comme l'alternative crédible pour empêcher, étouffer, voire contenir ces phénomènes. ou les éventuels événements de nature à perturber le tissu, le tissu socio-religieux et dans un cadre plus global, la sécurité des nations. Du haut de cette tribune, nous rendons un hommage vibrant et appuyé à Cheikh Muntaha Mbacké yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg te notre guide bien-aimé qui est en amont et en aval de cette SEPCAP. Il nous a guidés de par sa miséricorde et accompagnés de ses bénédictions. Il est la continuité la plus éloquente, le digne et noble héritier de Cheikh Bamba. Serigne Mountakha est un éducateur avant-gardiste qui comprend profondément le pouvoir libérateur du savoir. Cette posture est perpétuée jusqu'aujourd'hui avec l'érection du complexe universitaire Cheikh Ahmadou Bamba. Son engagement envers l'éducation est motivé par la conviction que la connaissance est la clé vers l'autonomisation individuelle et collective. Celui qui résout les problèmes et apaise les cœurs. Cheikh Bamba nous a libérés. Hat fakk kabla, hat fadla fa dur walla wanaxu jaay Amen. Il a brisé le carcan. Il a prodigué les dons. Le danger s'est écarté et le profit s'est installé. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous adressons nos sincères remerciements. Votre assistance singulière durant cette semaine du patrimoine de Cheikh Ahmad Bamba est un exemple éloquent de votre amour et vos actions envers la communauté mourite, envers Serigne Touba. Monsieur le Président de la République, vous êtes authentique, sincère et dénué d'ambivalence. Vous avez aidé, vous nous avez aidés et accompagner tout au long du processus d'acquisition de ces six photographies inédites de Serigne Touba. Vous avez décidé d'inscrire la mémoire iconographique de Cheikh Ahmad Bamba Mbacké sur la liste représentative nationale du patrimoine culturel immatériel. Vous êtes le premier conducteur contributeurs sans nul doute pour mettre en place le Kërou Barkelou au musée du mouridisme. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du Khalife général des Mourides, de tous les talibés, nous vous remercions vivement, infiniment, jërëjëf. Mesdames, Messieurs, Cheikh Ahmad Bamba est une vie, une histoire, une source d'inspiration notre bien commun partagé dont les œuvres à tout instant doivent être revivifiées. Et, quoi qu'il, et ce, quoi qu'il en coûte. Il y va de la préservation de notre identité collective musulmane et sénégalaise. En célébrant le patrimoine de Cheikh Ahmad Bamba, nous honorons un bâtisseur de communauté. Il a créé un modèle de société où la spiritualité, le travail acharné, la paix et l'éducation s'entrelacent harmonieusement pour former un tissu social robuste et aimant. Aujourd'hui, en tant que gardiens de cet héritage précieux, nous sommes appelés à réfléchir sur la manière dont les enseignements et le patrimoine de Cheikh Bamba peuvent continuer à inspirer et à guider nos vies. Je ne saurais terminer mon allocution sans adresser mes vifs remerciements au comité d'organisation de la Semaine du patrimoine de Cheikh Ahmad Bamba. Vous avez agi sans compter, fait preuve de responsabilité et travaillé avec rigueur et méthode du début à la fin de cette semaine. À tous les Sénégalais d'ici et des diasporas, conscient des enjeux, toujours au service général et de la communauté. À l'État du Sénégal pour son sens des responsabilité et son appui à tous les niveaux pour la réussite de cette semaine. À la presse sénégalaise d'avoir œuvré à la vulgarisation de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmad Bamba et à l'importance de la levée de fonds lancée ces derniers jours. jërë ngeen jëf à l'année prochaine incha allah. lu mu doon am na ku ko man sëriñ bi di ko defloo jërëjëf sëriñ xaadim ngom jëkkanteeg waxtu wi nag nu jàll ci jëwriñi sëriñ Tuubaa ji ci ndakaaru cheikh Amadul taxaat teg ko ci ndakaaru ak la ko wër waaye magam ju baax ja cheikh Mamadou Lamine Baara